bisub euh, mbégte la ci ñun ñëpp ndax euh, sëriñ Amidoune lii sëñ am wax léegi rek dafay euh, dafay dëgg mooy ñun ñëpp la siggal ndax fi fi jamono ji toll ak li nga xamante ne bii moom lañuy teg ay tuuma ci sëriñ si rawatina sëriñ su ndaw si mu def lu day nii loolu foog naa ne ñun ñëpp la siggal Euh, moo tax dafay euh, dafay fierté te sama teewaay fii loolu moo ko sabab ngir euh, encourager ko ngir jaajëfal ko wante aussi ngir wane ne lii mooy yoon wi te ñun ñëpp lii mooy li ñu war te mboolem ndaw yi fi nekk nañu xam ne lii rek mooy li nga xam ne mooy lii mooy li am njëriñ kon ñu koy sant di ko di ko gërëm di jiital nag ci waxtaan wi di sant ak di nuyu mbooleem kilifa yi ñu fekk yépp sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la sant Xaadim ak mbooleem waa Daaru Salaam di la ko yóbbante ci mbooleem kilifa yi di sant yi itam ak di nuyu mboolem invité yi nga xamante ne bi ñoo fi ñoo fi teew di xam rek ne téere bi dafay téere boo xam ne téere bu bu am solo la foog naa jëli boo xam na ko léegi téere la boo xam ne man bi biig sax laa ko xool mais ci diggante su gàtt ci nga koy ci nga koy liir parce que une fois nga commencé ko doo ko doo ko bëgg a bàyyi ndax liñ ci fekk am na solo ci contenu ci xam-xam waaye aussi neex naa lire ci ni nga xamante ne bi style bi mu ko bindee ak fluidité bi mu àndal ak ni nga xam ne noonu la tubaab yi neexee moo tax ba liir gàtt ci nga koy ci nga koy liir euh, ñu am ci yu bare bari yoo xamante ne bii ñun seet nañ ko ci muy yoo xam ne yu am solo la man ne ma ci gën a ràññee moo di yi nga xam ne maam Cheikh Anta na ko wala même day wax ne réconcilié na ko wax nañ fi léegi dërëm ak ngërëm manees naa wax temporel ak spirituel mais naa wax religion ak politique mais naa wax élégance luxe ak dëdd àdduna mais naa wax itam modernité ak tradition loolu mu def ko waaye defalu ko boppam lislaam la ko defal te naa ci dikk léegi ndax yooyu dañ ko daan xajale moom mu dikk wan ñu ne loolu lislaam dàqu ko wane ne lislaam diine la joo xam ne tey ak ëllëg la religion la boo xamante ne bii dàquwut ak développement wan ñu ne buñ nee dërëm ak ngërëm bu njëkk buñ mosaan wax wërsëg dañ naan seytaane la dañ naan nit bu ko amee dafay bew daf koy sorile sunu borom moom it ñu wan ñu nekkat wërsëg boo ko amee la am solo mooy la nga cay def sa sama mel ni bokk moom ma jaax alxuraan daf ma daan wax naa ma xaalis la mu gën a morom ja mooy weccat wax boo yoree téeméer téeméer yëpp a yem waaye ka dem ca baar ba jënd fa lu araam bokkut ak ka dem jënd ca lu dagan kon bu ñu la delloo weccat ci ngay xam sa xaalis ndax moo gën bële wala bële moo ko gën kon maam Cheikh Anta loolu la ñu wan si li sëñ Xaadim wax léegi ne moyen la pour àgg ci ay fin yoo xam ne ay fin yu duwaab ay fin yu yu am solo la kon ñu ne élégance bi ak rafetaay bi ak taar bi ak ni mel boo gisee mel ne buur waaye teewul biir ga ak xol ba ak lépp Sëriñ Tubaay kese la ak ak suufu yaa ngi koy tabax étage ba mu mel na mu war a mel waaye tànkam du ba jël teg ko ci escalier bi yéeg ci kaw kon kooka la muy def foog naa ne jubluwu cee bëgg àdduna waaye la mu ci jublu mooy teral doomu aadama yi ndax lépp loo xamante ne bii teraanga la jullit moo ko yeyoo wane aussi également doole yi Serigne Touba def ko aussi ngir doomu aadama yi waaye jëmam taxul ndax soxla wax nga léegi wut oto yu bari fenn fu rek moom fa oto oto bi lu muy jariñ dañ koo teg fenn ngir dem di ci siyaare ji Sëriñ Tuubaa kon loolu ñu war cee jàngee kon bàyyi na oto këram ñeenti oto day war bi gaari ëllëg mu war beneen kon loolu aussi foog naa ne leçon la ci ñun ñi nga xamante ne bi ñépp la euh, kon ñu ne kon euh, maam Cheikh Anta bu ñu waxee ne buñ ndikkee ci ci religion ak ak politique loolu euh, ji li ba wax na ko léegi effectivement ci ci ñi nga xam ne ñoom financé campagne bi Ngalandou Diouf ci la bokk mais même lu ko jiitu am cent 1914 bi nga xamee ne Blaise mi ngi wut réew mi boobu communauté mouride jox nañ ko mille francs gis naa ko ci benn archive préciser wuñ kan moo ko jox Blaise mais jàpp naa ne bu ngeen ci gëstoo du sori maam Cheikh Anta wala maam Cheikh Ibrahima te loolu aussi di wane ne loolu aussi am jàngat bu jàngat bu sew bu ñu ci war a def dañuy gis euh, tey jii beaucoup de gens soit avec les les politiques peut-être prébendes et nous voyons que nos ancêtres quand ils faisaient de la politique ils le faisaient pour l'islam et quand ils étaient avec les politiques Ce sont eux-mêmes qui finançaient de leur poche les activités de ceux qu'ils soutenaient. Et c'est ça qui leur permettait de rester indépendants. Donc loolu si du la am solo te loolu tey jii aussi lañ ko war a gën a delloo si ñoom bu ñu ànd ak way politique yi ñoo daay yëkkati seen xaalis ci seen poche di leen ko jox di leen financer parce que lañu ñu nekkoon idéal la dañu koo gëmoon sacerdoce la woon ci ñoom kon maam Cheikh loolu li mooy li nga xamante ne bii mooy mooy li mu wane woon kon yooyu nga xam ne conseil ko yëpp rek damay wax nañ fi aussi ne euh, agriculture irriguée moo ko fi njëkk a def wala bokk na ñi nga xam ne ñoo ko fi njëkk def téléphone moo ko njëkk am këram kon loolu yëpp di wane ne jumtukaay yi nga xamante ne bii kët doomu aadama xelam ñu ngi koy génne loola nekk loo xam ne lu aram la waaye lu mën a jëfandikoo la ngir teral ndax lépp rek teraangay euh, doomi euh, doomi adama la te loolu lépp aussi di wane ne la nga xam ne mooy la ko sëriñ bi jàngaloon mooy wane nekkat kat dëddu daxawut ak sàkku lu lew kon lan mooy li nga xam ne mooy li am solo sàkku lu lew la sëriñ Tuubaa kon dafa am aw yoon ndax l'islam permettre bépp ci càkkutéef am na càkkutéef yoo xamante ne bi dafa dafa dafa dagan am càkkutéef yoo xamante ne bii dafa dafa aram mu dikkaat ci amal gi nga xamante ne bii dikku ne mën na ko te loolu la am solo ci téere bi ndax waxtu bu nekk mi ngi wane ne li ëpp solo mooy ne kat li nga xam ne moo tax ñu sàkkuñu muy jaamu yàlla li ëpp solo mooy li nga xamante ne bi aussi mooy li nga xam ne islam daganal na tout le temps loolu daf koy dellu si ci ci téere bi nga xam ne donc day mel ne loolu mooy base bi kon boo sàkkoon leew ba noppi nag la nga xam ne moo ci jógee nag loolu moo lay permettre nag nga xidmawu defaat ko au service de la au service donc de la communauté mooy li nga xam ne maam Cheikh daana ko def di tabax ay jàkk di dundal nit ñi di joxe addiya di yóbbu nit ñi màkk ak lépp loo xamante ne bii lu baax la kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di féliciter encore une fois donc Serigne Amidoune